léegi moom Amadou Ba lan mooy lan moo war a nekk posture am Ba da nga dul xam sax moom lu muy xalaat. <laughs> c'est-à-dire lu may loolu. lu may loolu. ah dafa dafa toog daal di affaire daal dafa mel ni diis na ci moom. diis waaw. mu gisee ci moom. non parce que euh, yow est-ce que gis nga bi affaire bi commencé ba léegi Amadou Ba génn imposé wax ci taxaw affaire yooyu. est-ce que xam ngeen li muy def ci suuf si hmm? est que xam ngeen lu muy liggéey ci suuf aussi. ah mais dañuy suuf xanaa kay ñun bu ñu nekkee ay journaliste sax xamuñu lii bi dañuy suuf mooy jëriñ ñoo joxul lekk quand même jëriñ ñu joxul lekk. mais justement. waaw moo tax ma la. xëy na dafa yuuxul ci kaw waaye mu ngi liggéey ci suuf. non non non Ba posture bu difficile la nekk. bëggul heurter Macky maanaam bëggul def dara loo xam ni jubóowu ci ak Macky Sall parce que dafay calculer Macky de trop pendant ce temps am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci appât bi li ñu bëgg moom aussi mënu ko parce que ku ko bëgg a soutenir ku ne da ngay bëgg toog ak moom poser ay conditions mu jox la ay gages et cetera mais loolu bu fekkee daf ko bëgg a def loolu rek lay def. dootul amati benn jot dootul def dara. il ne devrait pas calculer Macky Sall. donc loolu non waxuma warul calculer Macky Sall waxuma loolu mais man je pense que dafa calculer Macky Sall ba mu ëpp. dafa war a libéré waaw dafa calculer non non xam nga du ma ay mots yu violents ay yooyu parce que kenn tënku ko nit la mais euh, li muy calculer Macky Sall dafa bari daf ko bàyyi xel ba mu ëpp ci sama gis-gis ñeneen yi aussi. xamuñu ni moom lu mu war a def dafa bëgg def ay réglage ak Macky Sall ba pare ñeneen aussi yàkkamti tu comprends ci affaire boobu la nekk loolu tax affaire am metti oh, léegi ñu ñëw ci deuxième ci beneen. par exemple ma jox la benn exemple. Uh-huh. directeur de campagne yu Benno Bokk Yaakaar xam nga préparé nañ ko bu yàgg mënula génn parce que il faut ay arbitrage ak Macky Sall ak et cetera et xam nga loolu exemple la mën naa jox exemple yeneen yu bari. ak yeneen ak yeneen ak yenn. nañ yem foofu rek. pour pour pour c'est pour nga xam rek que ni yombul ci moom. ba pare li tax exercice bi gën a difficile ci moom moom dafa war a boole assumer héritage ba pare offrir de l'espoir pour l'avenir loolu ja yombul de. maanaam yow lañ defoon yépp nga war koo yanu ba pare war a wax nit ñi ni lañ defoon parce que loolu faaw nga nangu ni lañ defoon am na lu ci bon parce que boo nanguwul ni defoon am na lu ci bon nit ñi dañuy jàpp ni boo ñëwee lañ defoon la gaa yi defoon rek ngay def te boo nee la gaa yi defoon rek ngay def mais du am ñu bees ñu la topp donc exercice boobu moo jafe. naka ngay yanoo la benn bokk yaakaar yëpp def en même temps wax ak nit ñi na leen su ma ñëwee danaa ci soppi lii soppi ci lii soppi ci lii te loolu il faut benn bokk yaakaar accepter loolu parce que bu ñu may loolu Amadou Ba Amadou Ba du gagné parce que mënta yam ci Benno Bokk Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar ñu exercer le pouvoir pendant 12 ans yaa l'usure du pouvoir am na lu bari lu ñu perte Amadou Ba pour mu gagné il faut mu dugal ñeneen pour mën a gagner. mais donc il faut ñu accepter mu renier une part d'héritage maanaam du assumer lépp day assumer li baax li bon mu ni du ma dama koy teg gi dindi ko fële indi discours bu bees pour mën a boole indi ñeneen boole ci boole leen ci Benno Bokk Yaakaar pour mën a gagner.